2011. waaw ah. discours bi Macky Sall doon tenir moom la ñuy tenir tey. Macky Sall ay vaaru kese la. Macky Sall yaramam yëpp vaar la. nguuram jeex na na nangu juróom-ñetti weer moo ko fi dese. nguuram jeex na na nangu juróom-ñetti weer moo ko fi dese. mais na ko rafetal rek li xale yi naan xoolal ñaaw na ba pare tere yi gën a ñaaw. bu jeexee jeex na. Idriss Seck lakk na ko démb ay tubaab mu xóot xaw ma nag ndax te Macky nandite la xam na li ko Idi wax. mooy laalal sijaada ak kuruus te nga laal pliant toog mbir mi jeex na ta nga rafetal sa ginaaw mais comme que ñuy ànd ak moom ñoo commencé di ko cax wax na bu loolu weesoo lii xew nii nii nii ci dëkk bi nii ak Ousmane Sonko nan nangu ndogalu borom bi yàlla mooy may lu mu may nit da nga ko nangu même boo bokkul ak moom foo leen far nangul Macky nan nangul lii yàlla dogal jéena leer na li euh, effectivement je confirme ce qu'il a dit euh, Dakar lañ jógee pour euh, pour teew fii prospérer, un tyrannisme nous fait prospérer. Mhm. Et Macky ne, réussira pas. Il a engagé un bras de fer avec le peuple sénégalais. Il, euh, il échouera. Euh, nous Donc c'est ça qu'il faut dire. Tout le peuple s'est donné rendez-vous à Mbaké pour montrer à Macky Sall que c'est terminé. sa dictature ne peut pas prospérer et dinañ ko parce qu'il va échouer dans son bras de fer avec le peuple sénégalais.